AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy AFT TV rahimun qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala allasi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan min hulun qad washal dakiran wa shakiran abad waj'al kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana al xikam faliyahab bil mustafa xayra sham asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara ji waa at bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di di beral nu yoog siyaara waa daara xikmatul yawmi xaaju benn ñaar ñett ñeent ak juróom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 waaye dafa fekk na am na ñoo xam ne nii ci xikma bi rek lañuy ñuy eh, xamee yëgle yi moo tax ñu koy leeral noonu eh, waxtu wi nag moo soppeeku dañ ko jàppoon waaye waajtaay bi dafa yokk ci képp ku ci bëgg a dem nga teel a bindu képp ku ci bëgg a joxe sa addiyee tamit moo xam da dem moo xam sa tànk dafa diis nga bëgg ñu demaale la man ngaa woote ci numéro yooyu yi ma joxe ñu bind la wala nga joxe sa àddee ñu defal la ko ci incha allahu te ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sëriñ Touba sunu yaakaar muy waxam yu am njariñ yooyu yi nga xam ne nii daana ci jëriñ mboolem jullit ñi waaye rawatina ñi taxawoon ak moom di sàkk këramul yàlla muy mag ñi. jëlee nañ ci Serigne bu Mbacke yàlla na ko suñu borom dolli ay ngërëm mu ne Serigne Touba de noon na. nit ñetti yëf la nit yett rekk la dal ne nit xol bi la ak làmmiñ wi ak baqiyatul jawaari baqiyatul jawaari mooy li des ci cër yi mu ne xol bi am na dëkk bu mu war a dëkk am na dund bu mu foo war a dundee làmmiñ wi am na dëkk bu mu war a dëkk am na dund bu mu foo war a dundee baqiyatul jawaari am na dëkk bu mu war a dëkk am na dund bu mu fa war a dundee dal na xol bi ana furib dëkkam moo di tawxiid maanaam weetal yàlla ana lu dundam moo di niyatul xayr yéene aw yiw bu saxee ci dëkkam bi di dund ci dundam bi du tumuranke du yooy dal na làmmiñ wi ana furib dëkkam moo di dikrullah maanaam di tudd yàlla anal rib dundam mooy xawlul xayri di wax aw yiw bu saxee ci dëkkam bi di dund ci dundam bi du tumuraanke du yooy dal ne ba xiyatul jawaari te mooy li des ci cër yi ana fuy seenub dëkk moo di alwaajibu wal mandub maanaam lu war ak lu ñu sopp ana luy seenub dund mooy fixalul xayri maanaam jëf aw yiw waa bu ñu saxee ci seen dëkk bi di dund ci seen dund bi duñu ñu tumuraanke du yooy boo saxee dal ne boo saxee ci yéene aw yiw ku la mën a bañ dana la mujj sopp boo saxee ci wax aw yiw ku la mën a ŋàññi dana la mujj tagg boo saxee ci jëf aw yiw ku la mën a toroxal dana la mujj teral kon yett yi rekk moo fi nekk mooy yéene lu baax ak wax lu baax ak jëf lu baax ñu jëlewaat ci sëriñ Abibu Mbàkke itam yàlla na ko suñu borom dolli ay ngërëm mu ne suñ Tuubaa noon na wala takun min al ghafilina inda niyya bul sàggan mukk ci yéene ndax inna allaha alimun bi suñu borom moo ne xam na li nekk ci seen dënn yi dal ci tegaat ne wala takun min al ghafilina inda al xawla bul sàggan mukk ci wax ndax suñu borom tabaraka wa taala moo ne qad sami allah lu ngeen wax yàlla dégg nag del ci tegaat ne wala takun minal xaafiliin indal amal bul sàggan mukk ci jëf ndax suñu borom tabaaraka wa taala moo ne innahu bima taamaluuna basir lépp lu ngeen di jëf rek suñu borom tabaaraka wa taala gis na ko daal di koy tëjee laa ilaha illa kon kooki mooy sëñ Tuubaa nit mënta weesu yett yooyu mooy li muy yéene ak li muy wax ak li muy jëf kon rek waay nanu yéene aw yiw rëkk waay nanuy wax aw yiw rëkk waay nanuy jëf aw yiw yàlla nanu ci ak sunu borom tabarak wa taala dimbalat te jàppaleen ci defal ñu tawfiq ci barkeb Cheikhul Xadim ñoo ngi soññaan mbokk yi jullit yëpp mbokki taalibe bi yëpp ci liggéey bi nga xam ne ne waa daara Hikmatul Yawmi ñu ngi koy liggéeyal Sëñ Tuubaa te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ci ndigal lañ ko teg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 in uridu illa al islaaha mastataxta ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh